nga nga ci def lan nga gis. bon déjà la première chose qu'il faut remarquer c'est que Bassirou n'est pas encore président nañ def président. comment ça. il n'a pas la posture d'un président il n'a pas présenté un discours de président il a présenté un discours de militant il a tenu des termes des propos qui sont des propos de militants. Il parle de projet, il ne parle du Sénégal, il ne parle de l'État, il, ne parle, même pas de programme, de la mise en, place, de la, de la mise en œuvre d'un programme, il ne parle pas des, sujets brûlants. Euh, bon, on va dire que c'est un, on, on, va dire que c'est un premier discours, mais attention, oui. un président de la République, tu viens d'être élu président de la République et tu parles de, de, de, de Ousmane Sonko en parlant de président Ousmane Sonko, attention, mhm. c'est un signal très fort. Ah. On a, ah, oui, on ne devient pas président par procuration. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec la coalition FAL qui a, qui a élu Abdoulaye mm-hmm. bi ñu demee ba nar sonal Abdoulaye Wade leen ne yéen a ma jàppale ñu fal ma waaye man lañ fal. Mm-hmm. il s'est départi de Moustapha Niass. et Dansokho en premier. oui mm-hmm. Dansokho après Moustapha Niass. qui ah. était premier ministre à l'époque mu ah, jële ko fii indi Mame Madior Boye et cetera et cetera xam nga gis nga réew. boo ci nekkee a adopté jamono ji. mais c'est le président de la république xam nga jomaay <laughs> bu démb ak jomaay bu tey bi du benn. Mhm. mënul nekk benn. attention dafa gaaw aussi ah. du mais il faut mais yow yaay xëccu nekk président danga war a pare balaa ngay xëccu dara da nga war a pare soo parewul yu mel nii mooy am. Mhm. c'est lui notre président de la République maintenant c'est le président de la République du Sénégal ñu bëgg ko ñu bañ ko ñu ànd ak moom ñu bañ a ànd ak moom à la fin de la journée c'est lui ki signe les di les décrets mooy suñu président mm-hmm. il n'a qu'à faire en sorte de pouvoir nous représenter parce que Sénégal dafa yaatu mm-hmm. du dëkk ngaaka ça nañ ñun normalement dañoo waroon am président di ko xool di roy ci moom jéem a ndiroog moom mais moom na jéem a ndiroog ndax tolloogul foofu loolu mooy dëgg vos propos sont un peu mais mais li ma gëm laa wax dur ou pas li ma gëm laa wax mu neex mu naqari li ma gëm laa wax li ma gis laa wax c'est le président de la république c'est mon président c'est le président de mon pays. xam nga li ngay wax nii. mais euh, nañu jéem a. xam nga li ma bëgg wax mooy euh, Macky Sall mi soo ko falu qu'est-ce qu'on disait un président. am na un accident de est-ce que xam nga Macky Sall bi na décision doon jël les gens disaient kii c'est un opposant au pouvoir donc la ñuy gis au ba mu faloo ba tey la ma dala wax ci moom mhm. laa wax ci moom ba tey mooy lan 2012 ba am na foo xam ne toll nañ fa situation taxaw ndaam ànduma ak Macky Sall mhm. damaa wax li ma gëm par rapport au texte par rapport à la constitution ñi doon wax mhm. que ni damay wax li ma doon wax gëmuma ko parce que dañ ma doon fay ak loolu waa tey kan moo may fay li may wax nii moom laa gëm <laughs> ana ku may fay ana ku may fay pour ma wax lii may wax nii mhm. li may wax nii moom laa gëm Diomaye ne nous ressemble pas il n'a qu'à faire en sorte de nous ku bëgg Diomaye na ko wax dëgg il est le président de la République du Sénégal ce n'est pas un petit pays wax na ko sànq on mhm. vote dans ce pays depuis 1836 yaa ngi dégg la petite note là la petite euh, symphonie que le Sénégal a toujours jouée au sein de l'Assemblée des Nations Unies quand il y avait les deux blocs ah avec les ambassadeurs Alioune Sène on a eu de grands hommes on n'est pas un petit pays peut-être qu'on est petit par la taille on est en Afrique de l'Ouest mais nous sommes une grande nation nous sommes la grande nation sénégalaise